mbokk yi compagnie Serigne Seck Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbind dina door benn fan ci weeru janvier 2021 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru janvier 2021 li bees ci jongante ren bi nag bi ñuy amal Sall jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépo la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. anta bi ni'mati rabbika bi majnuun. hudaa ilaa la

benn ci pàkk Serigne Touba yi nga xamante ne jëwrinam ju mag bokkoon ci murid sarax yi njëkk ànd ak moom muy Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu moo fi dëkk woon tey fii nga xamante ni barab la bu ci barab yi yoonu murid nga xam ne ëpp ci njabootu Serigne Touba gi fekk nañ fi ci muy ay doomam yu góor ak ay doomu jigéen ak murid sarax yi njëkkoon ak moom ñu ci bare bare fekk nañ ko ci bi lii illay nag ñuy jëmmi siyaare barab bi ci boppam mooy fii ñu nekk nga xam fi lañ taxaw ni mooy néegu boppam bi nga xam la dëkkoon Euh, fi la nekkoon daan fi jóge di siyaare sëñ Touba Ndiarème liggéey bari fi la ko doon waaye fii ñu nekk nii nga xam fi lañ taxaw nii mooy néeg bi nga xam moo doon néegu boppam bi mu dëkkoon bi yàlla dogalee muy muy muy delluwaat bi la wàcce woon moo taxoon nag ñu doon ko kenn bañu defee dëkk ñu defoon ko barabu siyaarukaay moo tax ñëwoon di fi siyaare waaye nekkut boo xam ne dara dafa xewoon waaye moom ci boppam moo fi dëkkoon ci ko sëñ Bassirou Mbacke waajale yóbbu ko Touba ne bi mooy mooy néeg bi nga xam ne fi la dëkkoon ci kër gi moo tax bi ñuy defaat kër gi ñu isolé ko boolewuñ ko ci biir kër gi def ko barabu siyaarukaay mooy néeg bi mu dëkkoon fii la wàccee liggéey Cheikh Mamadou Basir fii la ko waajale jël ko yóbbu ko jox ko sëñ Maam Cheikh Mamadou Fadil mu denc ko Touba loolu mooy illay barab bi ñuy siyaare fii ci njene lagan waaw mooy fii ci njene lagan fii nga xamante fi la ñu koy ubbil jumaa ji jumaa ji it moom ñi ngi koy wax waaye loolu répété lay doon sax ndax jumaay njaareem ji bi ko sëñ Touba di taxawal moom moo nekkoon jëwriñ ji ànd ko yoonu murid wépp léegi ko fay ci baatin fayee ko murid yëpp loolu moom sëñ ko xam ak moom mi mu ko defal waaye fayuk saayir gi moom mooy tey ndax kenn ci taalibe bi tabaxal na ko fi jumaa joo xam ci ndigal Sëriñ Latif moom moo wecc jumaa njaarim ca daa mel noonu xarfan bi xarfin noonu la mel même architecte bi sax bi mu koy defar daa dem njaarim natt jumaa ja surface yi na mel ak couleur ba na mel yëpp mu defaat ko fi kon lam liggéeyal Sëriñ Touba njaarim moom la ko fayuk baatin gi moom duñ ci ndax Sëriñ Touba rek ko xam waaye fayuk saayir Cheikh Abdoulahi nekkoon na fi ab diir boo xamante ne nekk na fekk moom lu yàgg Cheikh Mamadou Fadal sama turandoo nekkoon na fi Serigne Saliou Serigne Souhaïbou kenn ku nekk ci njaboot Serigne Touba fekk na ko ci góor ak jigéen soxna May soxna Momi soxna Muslim moom fii la nekkoon ñu ëpp ci njaboot Serigne Touba gi daal ci bañu lim ñoom ñëpp ñëwoon nañ ci kër gi murid sarax yu njëkk yi àndoon Serigne Touba lu mel ni eh, Cheikh Amadou Diaw Paxa eh, sëñ sëñ Balla Fally Dieng eh, sëñ ñu bare bari ci rak Serigne Touba yi ku mel ni maam Thierno maam Cheikh Anta Cheikh Ibrahima borom Darou Mouhty borom gaawaan ñoom ñëpp fekk nañ fi murid saar yi ñu nekkaloon ci ëttu sëñ Tuubaa ñi ëpp ñi ëpp ñi gën a bari fekkoon nañ ko ci fii ci ëtt bi muy njenn lagan ndax moom mooy dëkk bi mujj sanc ci àdduna gor fi lu man ñeent fukki kilomètre fii la dëkkoon muy njenn lagan daaru salaam la tudd dëkk bi daaru njenn la dëkk ñoo fi nekk muy ay doomu boppam ak seex yi nga xamante ñoom la àndaloon liggéey sëñ Tuubaa waaye fii nag moom moo nekkoon capital moo nekkoon dëkk muy daaru ci ko waajal yóbbu ko Touba loolu mooy illa ñuy siyaara barab yàlla na ko sa borom te yokk ay leeram te taas ñu di jaay Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul asalaamaaleykum wa rahmatullah rabbi sax rabbi sax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bisimilah barke borom Njenne barke maam Cheikh Issa kon bokk taalibe yi tey ñu ngi fii ci Njenne Njenne Lagane dëkku maam Cheikh Issa Dienne tey ñu taxawal sëñ Mbàkke Sourang mu sëñ Cheikh Sourang maamam Cheikh Issa Dienne seexal ko muy sëriñu daara yor daara ca Ndakaaru internat dee ko tey sur ansir tey ñu ñëwoon ci eh, jumaa ji ñu war ko ubbi ci àjjuma ji ñu koy laaj taarixu jumaa ji ak ana lan ma sabab jumaa ji sëñ sëñ Mbàkke Soxna bisimilah aasbilahi samil alamin shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi lasina stafa wasan kalaami rasidin wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida ok asalaamaaleykum wa rahmatullah li nga laaj laaj nga laaj bu am solo sëñ Sidi ci lan moo waral ñu daje fi tey muy ubbi eh, jumaa yi njenn loolu nag boo nee jumaa yi njenn sa xel dana daj lu bare bare rawatina boo xoolee ni mel xool bi nekk njaareem da nga xam ne jëmm ja nga ne moo woon ci ay jamono yu jafe-jafe eh, sëñ tu sëñ mag bi dénku ko liggéey boobu ak xameem ak xam bu yaatu ak xelam mu rafet ak njàmbaaram mayoon ko mu boole yitte yu kawe kawe ci jamono yu xare ba taxawal eh, jumaay njaareem ñëpp teg seen bët si jamono jooju mu yéeme woon yéeme goo na dayoo mu jumaa ji njëkk taxaw si yoonu murit di di mandargaal di siaarul islam boo xam ne koo gis xam ne lislaam taxaw na kenn xalaatul woon ne jamono bu mel noonu dana am euh, ci réew mi di senegal euh, bu taxawee ci euh, baaxu Maulana si Ahmadul Xadim mu jaarale ko suñu sang bu tedd bi maam Cheikh Issa Dieng bu demaatee ba gis lu mel nii danañ xam ne li arab naan hasil aqdam min tilka maanaam lii ci lële la bàyyi ko arab di ko wax ba tey maanaam aljasa min jinsil amal dafa am lu baax lu mu def ñu fayaat ko lu mel noonu ku ko natt da nga xam ne euh, liggéeyal ku baax rek moo mat a ku baax rek moo mat a liggéeyal wala liggéeyal koo xam ne am na lu mu la mën a fayale te loolu gis na ci maam Cheikh Issa Diène liggéeyal na ku mat a liggéeyal waaye itam ki mu doon liggéeyal ku mën a fay la ndax dañuy wax ne képp koo xam ne yaa ngi koy liggéeyal mën ngaa dem ba mu yàgg ak tële gaar la waaye liggéeyal Sëñ Tuubaa ak yokkat bu si am liggéey boobu tey moom moo feeñaat te jëmm ji nga xam ne tam euh, moo ko taxawal muy euh, Mbaye Touré di kenn ci euh, njabootu maam Cheikh Issa Diène ndax ma ndax ay waajuram si kippaarug Cheikh ay Diène lañ nekk ba xëy seexal lañ ba mel niñ mel kon bu si kaneen jógewaatee taxawaate lu mel ni ab liggéey la boo xam ne am na lu muy joxoñ te damay wax ne jumaa ji ko xool ni mu mel di nga xam ne aw xeet la waroon aw xeet la waroon bu ko kenn taxawalee dara bu kenn démb si lépp di man-manam akuk ak akuk farlom akuk pëstefam euh, da ngay xam ne loolu moom yàllaa si dox yàllaa si dugal man-manam te yàlla lu mu dugal man-manam lu mu rëy rëy day oyof ndax ku ko xam alal ni mel si doomu aadama boo demee ba mën a génnee loo xam dañ koy natt si ñaari milliards ak lu teg ngir taxawal néegu yàlla da xam loolu man-manam suñu borom tabaaraka taala dugg na si te it euh, li ko lii tax mu mën ko itam mooy dafa ragalul joxe ndax yàlla bi yéefar yi ñëwee ne ko dañoo bëgg nga ubbil ñu magasin yërmande ngir ñu jekku àddina lu ñu lu ñu soxla si alal am ko suñu borom dane ba ñu ma leen ko ubbil de waaye su ma leen ko ubbiloon da ngeen di ragal finance xul lawantum tamlikuuna xazaa'ina rahmati rabbi isan la am sakatum xasyatal infaq wa kaana al insaanu xatuura kon dangay gis ne nit ki bu fekkee ne suñu borom tabaaraka taala may na ko mu am mu am moyen ba pare ñemee dépensé da xam ne kooku ku suñu borom tabaaraka wa taala gërëm la te suñu tubaab moo wax ne xasaa inu rabbi futtihat maa ngi si ne yërmande suñu borom ubbil na ko lii tegtal la si ci ci ci ci ci ci loolu dëkk bi moo ko def itam nañ xam ne Maolana si amoon xarit moo ko tànnaloon Cheikh Issa Diène ne ko si suuf yi nga xam ne suñu borom def na si barke te dëxal na ma ko njënd lagan si la bokk daanaka kon demal lagan ma fekk la fa ak la la gën li misaal la boo xam ne da wóor ni boo dundaatee si kanam di nga gisaat yeneen yoo xam ni euh, dafay dafay dafay dafay dafay jéggi dayoo te itam li benn la ci ndam yi bul fàtte ne sa Ibrahima Diom waxoon na ko xaasal mafaaxir saa jen sul karam moom daa wax ne làq na ay ndam mafaaxir ay ndam du benn ndam kon nañ séentu yeneen yu gën a jéggi dayoo ndax ndax ndax daf ko liggéey ndam yooyu mu am jigee Sëñ Tuubaa am ngërëmam ci lan la ko amee ci xidma ko faasa bil qurbi wa ridwaani waaye nag bil xidam lépp a ngi foon di jaamu yàlla woor aj màkka mbooleem jaamu yàlla yaa ngi koy def waaye góor yàlla yi dafa am fu ñu rawante muy buntu xidma mooy liggéey te yàlla rek tax kon liggéeyal na ku mat a liggéeyal borom bi tabaaraka na ko di ñaan niñ ko ubbee nii ci bismillahi rahmaani rahim mu di doon jàmm ba doon alhamdulilahi rabbil alamin ñu taxawu ko suñu se taxawu ko mu nekk liggéey boo xam ne du laal suuf mukk te itam rafet nañ njort ne du mës a euh, laal suuf yàlla na suñu borom tabaaraka wa taala mottali te gën a baril ay kemam dañ xam ne nag lii dañuy wax ni lenn la ci liggéey bi yu baree ngi fi institut euh, maam Cheikh Issa Diène bi sët yi war a defar mi ngi fi ay mbaar mi ngi fi ay jàngukaay ñu ngi fi kon nañ xam ni ñi nga xam ni dañuy def lu baax te yàlla dénk la ñu am teraanga nañ xam ni ay buntu ubbeeku na li misli haza fal ya'malil aamilun te itam ku jëf borom bi tabaaraka taala dana la fay kii moom ko dañuy wax ne euh, Mbaye moom képp kuy ab jullit amee nga ko njugal ci jëf ju rafet jii mu mu jëf loolu moom sikk amu xool ak foo mën a bàyyi ko ak noo mën a mel da nga yëg ni mbir mi borom bi tabaaraka taala dugal na ci tawfiix te Sëñ Tuubaa loolu la ñaanoon ab liggéeyam toujours day ànd ak tawfiix moo tax ab jullit moom ak wala rawatina bu ne ab jullit nga ab taalibe nga amal ak dogu rek boo xësee am ab dogu am xel mu rafet foo bëgg àgg rek euh, mën nga fa àgg salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw salaamaaleykum mbokk taalibe yi kon tubaarkalla euh, sama jëriñ ji leeral na taarixu jumaa ji leeral tamit li nga xamante ne moo sababum Cheikh Issa Diène ñëw fi.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 ak bi jëm réew. waaw ah, ñu am lépp tawfeex sëriñ bi moo la ko may. gën bi.